di ndokkeel it taalibe yi yépp rawatina bokk yi nga xam ne ñoo teew ci jataay bi ak bokk yi nga xam ne ñoo ñuy topp di ñu seetaan ci jumtuwaay yi nga xam ne ñoom lañ jàkkaar lool muy MKTV wala GMT ak ñi nga xam ne dañoo synchronisé ci ñoom ak fu ñu mën a nekk rekk ci biir réew mi ak ci bitim réew ñi ngi leen di nuyu bu baax di leen ndokkeel ci turu daaira muxaddamatul xidma bi nga xam ne ñoo am ndigal ci sëriñ bi cheikh mohamadul muntaxa ci jumaa ji ci di ko saytu ci fànn yépp ci wàllu entretien beeg li ci aju waaye ñu am ndigal tamit ci dundal weeru koor ci biir jumaa ji niñ koy defee at mu nekk mu doon loo xam ne mi ngi bëgg am ab diir ci fukki at ak nangam ndax atum 2005 la Cheikh Saliou Mbacké joxe woon ndigal li ngir ñuy dundal weeru koor fii ci jumaa ji ci ñaari anam anam benn bu ci nekk rek munta ñàkk ci jullit bi muy ñu dundal weer wi ci berndeel ruu yi muy ci di nafar ay bind ak ay waxtaan muy ay thème waaye tamit di def ay laaj ak ay tontu yoo xam ne nit ki dana ci mën a jariñu defar ci ruwaam defar ci xelam mu mën koo jariñ fii ak ëllëg kon loolu benn mbir la ci li ñuy dundale weeru koor ndax koor suñu borom daf ñu ko sàkkal ngir mu fàggul ñu ak ragal yàlla kon ci occasion boobu nga am nga xam ne sa jëmm sa ru sa jëmm dana yaru ndax tàggat gi nga koy tàggat ci xiif occasion la ci nga profité ci ngir man cee taatan ay xam-xam yoo xam ne dana la mën a jariñ nga mën cee jariñu loolu bokk na ci li tax daayira Muxaddamatul Xidma ci li muy dundale weeru koor fànn googu doon ci fànn gu ko yitteel lool yitteel it bokki jullit yi ak bokki taalibe yi yi nekk ci yi koy teewe ak yi nga xam ne ñoo nekk ci bitti loolu tax na su koor jubee diir bu yàgg laaj na bi nga xam ne moom lañ dénk loolu dana ci jokkook boroom xam-xam yi nekk ci dëkk bi ngir ñu waajal ay tomb yu wuute yoo xam ne yan yi dana doon ay tomb yoo xam ne yitteel jamono la xew-xewi jamono lay doon ñu waxtaan ci ak yoo xam ne ay bind lay doon bind yu fiq yoo xam ne dañ koy jegeel nit ki mu mën cee jariñu ci lépp loo xam ne lu lu muy jëfandikoo la ci lu muy jëflanteeg nit ñi moo xam ci jëmmam la wala ci jëflanteeg nit ñi wala ci aadaam ak yu ni demee nga xam ne kon dana am fukki jataay ak juróom-ñett yoo xam ne ay thème d'actualité lay doon tomb yoo xam ne lu yitteel jamono lañ ciy waxtaane moo am juróom-ñett yoo xam ne ay durus ay dars lay doon muy ay bind yu jox nit ki yoo xam ne daf koy jariñ jataayu tey bii sax ci durus yooyu la bokk ci bind yi ñuy joxee la bokk waaye moo am ñeenti jataay yoo xam ne tamit ay fatawa lay doon yoo xam ne laaj yi nga xam ne moo fi rot bokk jullit yi di ko laaj te di ko laaje fu nekk ñi teew ci jataay bi ak ñi teewut di ko jaare ci numéro yi ñuy joxe ak yu nu demee yooyu it am na ñeenti jataay yoo xam ne dañ ko fi ton loolu incha allah ci diirub weeru koor bi yépp lay doon li tàmbulee tey ba bis bu mujj ba di fanweereelu fan ba bu fekkee ne weer wi feeñut ci ñaar fukk ak juróom-ñett mu amaat beneen fànn tamit goo xam ne moom la ñuy dundale weer wi mooy di di dogal nit ñi ñi nga xam ne taamu nañ mën nañ ko sax am nañ lu luñ dogoo seen kër waaye taamu nañ ngir ñëw dogoo si fii ci sëriñ bi ngir jullee fi ngir tamit sàkku tiyaaba ndax jàpp naa ne loolu it euh, lu baax lu nekk luñ fu ñu ko defee baax na waaye defee ko fii dana fi sekkee lu Cheikh Abdou Khadir waxoon loolu nag mbooloo mu bari ñoo fiy daje at mu jot bu ñu xaymaa daaw ji nga xam ne moo mujj rek Euh, bët bu set lu man ñeenti junni ak juróom-benn téeméer ak ñaar fukk ak ñaar doon nañu fi daje di fi doge bu ñu xaymaa koor gépp daanaka matoon na téeméeri junni ak fanweer ak juróom-ñett ak juróom-benn téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeent kon loolu mbooloo mu bari la boo xam ne liggéey bu rëy rëy la boo xam ne ni amee ab liggéey ci wàllu dundal xam-xam noonu la amee liggéey bu rëy tamit ci nos nit ñi jaarale leen yoon ba kenn ku nekk toog fi nga war a toog. bu waxtu dog jotee nga dogu noppi julli dem sa yoon buñ noppee setal barab bi ba mu set nga xam kon dafay mel ne liggéey bi daayiram xadimatul ma ak membre danañ fi ñëw ci fajar gi ba ginnaaw naafila muy bu ñaar fukki bu juróom fukki waxtu ak benn jotee onze heures ci guddi loolu kon liggéey bu rëy rëy la loolu nag euh, lañ fas yéene tàmbali nii incha allah xam naa ci kanam tuuti ndaw yi Cheikh Mouhamadul Muntaxa danañu teew ci mujjug jataay bi ngir jottil ay doom ndax lépp ci ndigalam lañ koy defee ci bëgg-bëggam lañ koy defee moo ci joxe ndigal kon dana fi yabal ay ndaw incha allah bokk yi nga xam ne ñoom la daa yabal ñu teew fi danañu teew incha allah ci kanam bu ñëwee danañu leen tudd leeral leen su ko defee xam naa kon dañuy daal di jublu ci waxtaan wi rek waxtaan wi eh, niñ ko waxee ab bind lay doon maanaam attey koor lay lay jàngale ak ay tegginam maanaam weer weeru koor lan mooy ay atteem ak teggin yi yan lañ war a sàmmoonte ak weer wi loolu nag jàpp naa ne e, ñëw na ci waxtoom ndax su fekkee tey la bis bu njëkk ñu war a jox nit ki bind boo xam ne daf koy xamal lan mooy koor ak lu atteem ak nan la ci mën a sàmmoonte ak ay teggin ba mën cee jariñu kon teewlu ko war na teewlu ko war na bu baax a baax ci ñun ñi fi teew waaye war na bu baax ci ñi nga xam ne ñoo seetaan ndax mu mën leen a jariñ ndax mbir mu nekk loo cay def xam la cay farata ak la cay sunna ak lay tax nga jariñu ci ay la la la koy yàq ak lañ ca sib xam ko bu baax a baax ba moytu ko dana tax nga gën a mën a jariñu ci li ngay def kon tomb boobu lañuy ñuy fas yéenee mooy suñu jataay bu njëkk kan moo ñu koy defal nag docteur Serigne Cheikhouna Mbacké moom Serigne Mourtada moom Cheikh Mamadou faadal di boroom xam-xam di gëstukat Euh, mu di bindkat tamit moom moo ñu fas yéene defal waxtaan wi kon su ko defee dañuy jébbal kàddu gi sëriñ bi mu jublu ci waxtaan wi sëriñ bi bismillah billahi min ashaytaani rajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala ashrafi al anbiyaai wal mursalin sayidina wa maulana muhammadin al makin wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh noo ngi nuyu mbooleem ñi nga xam ne ñi ngi dégg sunu kàddu moo xam ñi ne ci jataay bi ak ñi ne ci biti di jiital ci nuyoo boobu nag a Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne mooy kilifa ak yoonu murit di ko ñaanal sunu boroom gën koo guddal ak fanam te yokk ak wér noonu lañ ko ñaanali mboolem ñi koy jàppale ci liggéey bi di ndokkeel bu baax ak kañ waa daairatu muxadimatul xidma ci njiital sëriñ bu Buso ci jataay yu am solo yi nga xam ne ñu ngi ko baaxoo amal ci weeru koor wi ni ko sëñ ni ko sëñ Thierno ni ko sëñ eh, sëñ bu Buso waxee léegi rek eh, mooy jataay yoo xam ne day jàngale ak di fàttale kon ñu ngi leen ci ndokkeel bu baax a baax di ñaan suñu borom nangu liggéey bi barkeb sëriñ bi Euh, kon xam naa duñ guddal ci nuyoo bi dañu daal di tàmbale ci waxtaan wi rek ngir njëkkanteeg waxtu wi ni ko suñu Abdoulaye waxee li ñu fa seeni waxtaane mooy koor ay atteem ak yenn ci teggeen yi nga xam ne war jar naa bàyyi xel ñu di ko sàmmante kon loolu mooy nekk waxtaan wi xam naa nag euh, waxtaan wi yàgg na fee jaar daanaka kon mën naa am duñ fi jële lu bees waaye li am solo rek mooy ñu fàttale ñi fàtte woon xëy na benn benn yi nga xam ne xamuñu woon ñu man cee xamee waaye ñëwuñu fi ngir indi lu bees xëy na dañuy fàttale rek incha allahu taala kon niñ ko xamee koor baat bi asawmu ci langu arab day firi rek jàpp maanaam jàpp jàpp lay firi asawmu te loolu ñëw na ci alxuraan ci suratu maryam ci sunu borom di waxe ne inni nadartu lirrahmani sawman kon foofu sawmu day firi al imsaaku anil kalaam waaye nag bu dee ci sharia ci lislaam mooy lan mooy bàyyi lépp luy xeetu bànneexu biir ak sëy ci tàmbulee ci bu fajar fenkee ba jant bi so waaye boole ci yéeni jàmmu yàlla yéeni jàmmu yàlla nga bàyyi lépp luy yàq koor bu bu fajar fenkee ba jant bi so yéene ca jaamu yàlla loolu mooy kooru ci lislaam ndax nit ki mën naa bàyyi lekk bàyyi naan te bu ca yéenewul jaamu yàlla du tudd koor am na ñoo xam ne dañu gere dañuy dañuy def euh, grève de la faim loolu yéene ja moo ko taqalee koor donte bàyyi nga lekk bàyyi naan waaye yéene ja mooy tax kon yéene mënu cee ñàkk su ko defee nag koor ni ñu ko xamee ñun ñëpp farata la yoo xam ne alxuraan indi na ko sunna indi na ko boroom xam-xam yëpp dëppoo ci ne farata la waaye yemul ci farata daa bokk ci ponki lislaam yi nga xam ne juróom lañ kon loolu rek buñ ci amoon day wane ne kon koor doy na sëkk ab wàccuwaay wala lislaam jox na ko ab wàccuwaay kon ñu xam ne farata la ni ko alxuraan waxee sunna waxee ko noonu boroom xam-xam yëpp dëppoo ci su ko defee nag am na ay sart yoo xam ne mooy tax koor war nit ki li ñuy wax suratul wujub am na sart yoo xam ne mooy tax koor gi wér am na sart yoo xam ne day boole war ak wér kon ñetti sart la ko boroom xam-xam yi séddalee yoo xam ne mooy tax koor war la ak yoo xam ne mooy tax koor gi wér ak yoo xam ne day boole ñaar yëpp day boole ñaar yëpp bu ñëwee ci xaaj bu njëkk bi mooy sart yi nga xam ne mooy tax koor war nit ki ba ca jiitu mooy mu nekk mu kallaf mu nekk mu kàllaf kon dañ ciy déggee ne kon gone gone goo xam ne kallifeegut koor waru ko kon koor ki mu war mooy mu kallaf su ko defee nag gone santuñu ko muy woor gone Eh, li gën mooy mu bàyyi ba kàllafe ba man ko doog ko def waaye niñ ko sante julli ci bu kàllafee gut bokkut koor koor moom dañ naan su ko digal xale ndax dañuy bañ mu néew doole kon nañ bàyyi ba nekk mag ba man ko defal ko boppam waaye xam ngeen ne julli moom bu amee juróom-ñaari at rek dañ koy tàmbalee digal muy julli su bañee sax su amee fukki at ñu bàccal ko ñu ñu ñu dóor ko bu bañee julli waaye kor moom dañ naan rek na bàyyi ba nekk kàllaf ba man ko waaye dee su ko digal jamono yi mu nekk xale kon sart bi ci njëkk ci sart war gi mooy nekk mu kàllaf ñaareel bi mooy nga man ko alxudra mooy man kon dañ ciy dégg ne ku feebar feebar boo xam ne mënta ànd ak koor kon koor waru ko xëy na ci kanam dina ci ñëw ci lu gën a yaatu waaye daal ki koor war mooy ku wér ku am kàttan mën a woor li tàmbalee fenkuk fajar ba jant bi so kon ku feebar génn na kon dégg nga naka noonu yi koo xam ne feebarul waaye dañ koo forcer maanaam dañ koo forcer ne ko bul woor kon jamono yi koy forcer koor waru ko waaye nag saa yu loola dañee euh, war naa fay koor ga dégg kon boobu mooy ñaareel bi mooy man ñetteel bi nag mooy nga nga nekk fi nga dëkk nga nekk fi nga dëkk mooy dañ ciy dégg ne kon boo dee tukki boo dee tukki koor waru la loolu ci kanam danañ ci ñëw ci lu gën a yaatu waaye kon ñu jàpp ne ñett yooyu mooy ñetti sart yi nga xam ne mooy tax koor war nit mooy nekk mu kàllaf te it man ko ba noppi tukki woo nekk fi nga dëkk ñett yi bu dajee kon koor war na nit ki bi ci topp mooy sart yi nga xam ne mooy tax mu wér gannaaw bu waree ci yow am na sart yoo xam ne mooy tax koor gi wér bokk na ci sart yooyu mooy ab jullit ab jullit la kooram di wér waaye koo xam ne nekkut ab jullit donte lislaam euh, donte atte lislaam mi ngi ci kawam waaye li fekk jëbbaloo li fekk tuubagut euh, koor du ko war kon bokk na ci sàrt yi tax mu wér wala boog balaa koor gaa wér faaw day tuub ba noppi kon sàrt bi ci njëkk mooy al islaam mooy nekk ab jullit ñaareelu sàrt bi tax koor wér mooy <clears throat> jamono ji ngay woor nekk jamono joo xam ne maanaam maye nañ ko fa woor loolu nag xëy na dañ dañ ciy génne weeru koor ndax am na fan yoo xam ne dee ko woor dañ koy aaye lu mel ne bisub korite wala tabaski bis la yoo xam ne dañuy aay ku ca woor kon jamono ji ngay woor nekk jamono joo xam ne maye nañ ku ca woor loolu ba tey day tax koor ga waaye ku woor ci bis bu ñu aaye woor koor ga du wér dégg nga kon ñaari sàrt yooyu rek la borom xam-xam yi mooy sàrt yi nga xam ne mooy tax koor wér nga nekk ab julit jamono ju ngay woor nekk jamono joo xam ne maye nañ ku fa woor bu ñëwee nag ci sàrt yi dajale ñaar yi mooy sàrt yi dajale war ak wér bokk na ca mooy nga ànd ak sa xel nga ànd ak sa xel kon ab dof koor waru ko te su wooree du wér ko xam ne an antokam xelam bu wooree koor ga waru ko te it du wér boole ci naka noonu koo xam ne dafa dafa xam dafa xam it kooku koor waru ko te su ko defee it du wér waaye nag saa yoo xam ne ki dofoon dem na ba wér wala ki xamoon dem na ba ximmi war naa war naa fay koor ga xëy na moom it danañ ci ñëw léegi maanaam koo xam ne jamono ji muy ndof booba fajar fajar fenk gut jamono yi ko ak ndof di ñëwal wala ak xam fajar fenk gut kon kooku dañ naan koor ga wàcc na ko ndax lan ndax bi koor di war fekk na xelam néew fi kon laata fajar di jot koo xam ne ak ndof ñëwal na ko wala ak xam ba xel mi nekkatu fi bu fekkee daa daa wéy ca noona ba fajar fenk dañ naan kooka koor ga wàcc na ko ndax lan ndax jamono ji ñu waree yéene koor booba fekk na léegi nag bu fekkee jamono jamono yi muy xam wala muy dof daa tombeek fajar di fenk nga xam ne moo fajar ñoo fenkandoo ma ñoo àndandoo daal ñoo àndandoo kon jamono jooju dañuy wax ne maanaam su waree du baax maanaam jamono yi muy dof wala muy xam moo fenku fajar ñoo àndandoo li ma waxoon léegi mooy daa jiitu mais bu ñu àndandoo dañ naan koor ga du baax koor ga du wér ndax xel ma néew foo woon ca ba fajar di fenk ndax ginnaaw moo fajar ñoo ànd rek kon kooka koor ga baaxut waaye nag dana ko fay waaye dana ko fay bokkut ak ki ma njëkk a wax kooku moom da koo diggal avant fajar te wéy wéy ba fajar fenk kooku moom du ko fay tey koor ga wàcc na ko wax naa léegi am xel moo jiitu ci sart yi tax koor war nit ki te mooy tax koor ga wér sartum ñaareel bi mooy jigéen bu gisee deret deret yi règle règle wala deret yi wasin ñaar yooyu bu mu ci gis koor waru ko su ko defee it du wér jamono ji mu gisee deret wala mu gis dereti wasin wala dereti règle lu mu ci mën a doon koor ga waru ko te it bu ko defee du wér waaye nag bu fekkee jigéen ji jamono ji mi làpp daa tollook fajar di fenk daa tolloog fajar di fenk kon koor ga war na ko kon koor ga war na ko donte bi mu bi muy laab daa ànd ak fajar dañuy wax ne kooka war naa war naa war naa yéene daa di daa di woor léegi nag bu fekkee da doon sikki sàkka ndax bi muy laab ak fajar lu jiitu ndax bi muy laab ak fajar lu jiitu maanaam daal fajar ñëw na ba jàll léegi nag muy sikki sàkk ndax bi laab gi ñëw ak fajar lu ci jiitu kon dañ naan ko na continuer woor na continuer woor ginnaaw day sikki sàkk ndax laab gi am na ak fajar lu jiitu dañ naan ko na na yéene woor waaye nag da koy fay ndax lan ndax ginnaaw sikki sàkk am na rek yéene yéene amut ndax yéene daa war a nekk lu dogu ndax ginnaaw yéene ji doguwul rek dañ naan ko na yéene maanaam na continuer koor ga waaye teew day fay bis boobu ndax yéene ja nekkul yéene ju dogu loolu la ñuy wax euh, kon loolu mooy sartum ñaareel bi maanaam sart bi tax kóoru we war la ba noppi wér bi ko ñetteel nag mooy waxtu koor jot buñ ne koor farata la balaa mën a wér faw koor gi day tàmbali waaye bu tàmbalee gut boo ko defee warula la tey boo ko defee du du wér kon faw da bàyyi ba waxtu wi jot bañ na weer wi feeñ na nga doog a tàmbalee woor kon ñett yooyu mooy ñett yi nga xam ne day boole war ak wér kon loolu mu aju ci sarti koor ci ni ma ko waxee léegi ci ñetti façon yooyu ci ñetti xaaj yooyu léegi nag ñu ñëw ci jëmmi weeru koor naka lay saxe naka la ñu xamee ne weer wi feeñ na koor gi tàmbali na am na ñetti mbir yoo xam ne boroom xam-xam yi wax nañ ko ne koor weeru koor dana ca saxe walla weeru korite ba ci njëkk mooy ñaar ñu ma maandu ñaar ñu maandu nañ ne gis nañu weer wi ñaar ñu maandu bu ñaar ñu maandu waxee ne gis nañu weer wi kon war na ci julli ñuy ñu woor ndax yonente bi nee na laa tasuumu xata tarawul xilaal wala tuftiru xata tarawhu fa in xumma aleykum faqdiru la kon gis gisug ñaar ñu maandu dana waral ñu tàmbulee woor ku maandu nag bu ñu ko waxee mooy ab jullit bu nekk mu kàllaf nekk góor nekk ko xam ne day moytandiku bàkkaar yu maanaam daal day bàyyi bàkkaar yu mag yi day bàyyi bàkkaar yu mag yi te it du sax ca bàkkaar yu ndaw yi kooku mooy ku ab jullit lay doon nekk mukallaf nekk góor koo xam ne day moytu bàkkaar yu mag yi te bàkkaar yu ndaw ya du ca sax kon kooku la ñuy wooye ku màndu léegi nag ñaar ñu maana ñooñu saa yu ñu gisee weer wi war na ci ñoom ñu dem wax ko kilifa ak ñi war na ci ñoom ñu dem wax ko kilifa ak ñi su ko defee moom moo yëgal jullit ñi ne weer wi feeñ na naka noonu yi même bu ñu ko waxut kilifa gi waaye képp koo xam ne wax nañ ko ko rek dañu jàpp ne kooka war naa woor ginnaaw ñoom ñaar maandu nañ te gisandoo weer wi képp koo xam ne wax nañ la ko war ngaa war ngaa woor dégg nga léegi nag ñaar ñu maanaam ñooñu nag loolu la madhab Malik wax maanaam ngirum Malik loolu lañ jàpp jàpp nañ ne weer moom gën jaaneew faw ñaar ñu maandu dañ koy gis waaye bu ko kenn ku maandu gisoon rek warta tax ñu woor wala ñu wori waaye wax nañ ne bu fekkee kilifa ak ñi dafa nekk koo xam ne tënku wut ci ngirum Malik nga xam ne mën naa am bu bu ko kenn ku maandu waxee rek moom day jàpp loola kon bu dee weeru koor la bu dee weer wu ñu war a tàmbalee woor wax nañ na kon bu joxee ndigal ñëpp war na war nañoo woor maanaam moom kilifa gi nekkul ci ngirum Maalik nga xam ne xëy na kenn ku maandu rek mën naa tax mu woor moom su ko kenn ko maandu wu ñëwee wax ko ko te muy weeru koor kon bu joxee ndigal ñëpp a war a woor waaye kenn sëñ te ñàkk a woor waaye nag bu doon weeru korite moom dañ naan faw day mat ñaar ñu maandu ndax dañoo war wax ne koor li la ci dugal génne wala ci <clears throat> maanaam eh, nga woor nga woor benn fan ci weeru Shaabaan moo gën a woyof nga ñàkk a woor ci weeru koor moo tax dañoo wax ne bu dee wori bu dee kori moom faw ñaar ñu maanu dañ koy gis ñu doog a wari waaye bu dee xëy na lu mel ne woor moom mën nañ faa xaw woyofal bu fekkee kilifa ga nekkut ku bokk ci ngirum Maalik bu joxee ndigal ci kenn commande ñëpp mën nañoo woor naka noonu commande saa yu gisee weer wi moom ci boppam daa war a woor même commande ki donte kenn la sax donte kenn la bu gisee weer wi moom ci boppam daa war a woor ndax yonent bi daa wax ne suumoo li ru'yatihi yi ngeen woor bu ngeen gisee weer te moom gis na ko ginnaaw gis na ko rek moom ci wàllu boppam daa war a woor dégg nga euh, bu ne bu dee weeru weeru korit nag moom bu ko gisee moom rek moom kenn rek su ko gisee moom kenn muy weeru korite dañu wax ne du du fésal ak ñàkk wooram mais da koy làq bu dee kenn rek moo gis weer wi ci weeru korite sëñta fésal ak ñàkk a ak maanaam sëñta fésal ak ñàkk wooram waaye da koy làq kon bu fekkoon ne daana ci am mbooloo li commencé fajar fenk ba jant bi so day ànd ak ñoom rek waaye du lekk donte gis na ko ci guddi gi moom rek waaye sëñ lekk ci mbooloo mii ndax lan dañuy bañ ñu tuumaal ko dañuy bañ ñu tuumaal ko moo tax day day yéene ñàkk a woor waaye du lekk di ko fésal kon li ci jiitu mooy ñaar ñu maanu gis ko bi ci topp mooy mbooloo mbooloo mu baree bari mbooloo moo xam ne mooy li ñu wooye aljamaa al mustafida muy mbooloo moo xam ne dañoo bari bari goo xam ne xel mënta nangu ñuy dëppoo ci lu dul noona maanaam xel day dàq mbooloo mii kat ñu mànkoo ne weer wi feeñ na kon mbooloo mu toll noonu saa yu gisee weer wi dañu jàpp ne kon ñëpp war nañoo woor te mbooloo ma duñ ca sàkku duñ ca sart ñu nekk ñu maandu duñ ca ñu nekk ñu maandu naka noonu duñ sart ñu nekk ay góor mën nañoo nekk ay góor ak jigéen. waaw kon daal saa yu mbooloo mu bëri gisee weer wi mbooloo moo xam ne xel nangu na ne mënuñoo dëppoo ci wax lu noona kon ñëpp war nañoo woor bi ko ñetteel nag mooy. ñu mottali weeru Shaaban fanweeri fan bu ñu séentoo ñaar fukk ak juróom-ñeent gisuñu ko ñu mottali fanweeri fan xëy tàmbale woor wala ñu mottali weeru koor fanweer daal di xëy wor yi léegi nag am na ata yoo xam ne jar naa bàyyi xel mooy koo xam ne dafa tukkee ci am réew dem ci meneen réew dañuy wax ne kooku atteem mooy réew moom nekk ku tukkee cim réew dem ci meneen réew atte bu kooka mooy réew mam nekk lay topp atteem koo xam ne dafa jóge Europe ñëw Sénégal te waa Europe njëkk a woor waa Sénégal kon bu ñëwee day ànd ak waa Sénégal bu fekkee waa Sénégal woor nañ ñaar fukki fan ak juróom ak juróom juróom-ñeent suñ woree kon day wori ànd ak ñoom bu fekkee waa Sénégal dañoo woor fanweer te moom moo njëkk a woor kon day am fanweer ak benn waaye teewu daa war a woor ànd ak ñoom kon loolu jar naa bàyyi xel léegi na safaan bi mooy safaan bi mooy mu jóge ci réew moo xam ne dañoo yeex a woor ñëw ci réew moo xam ne ñoo njëkk a tàmbalee woor kon ba tey day topp atteb réew mooma kon ba tey day topp atteb réew moom mooy bu fekkee réew mi ñëw dañoo am fanweer ak wala ñaar fukk ak juróom-ñeent gis weer wi te moom matal gut kon day ànd ak ñoom wari day ànd ak wari bu noppee mu fay réew mi mu nekk saa yuñ ñu matalee rek te moom matal a gut day ànd ak ñoom wari bu kor ga bu ko kori ga jàllee mu fay la ko la ko la ko dese woon kon noonu lay demee naka noonu it ki nga xam ne day tukki waxtu dogu jot ko mu ne ci kaw jaww ji mu ne ci loolu day am léeg-léeg nit ki mën naa tukki waxtu dogu jot jot ko mën a ci kaw jaww ji di tukki kon balaa sañ dog faw day xaar ba jant bi so ndax xëy na ki ci suuf moom mën naa am jant bi ci moom lañ dëkk a sowee waaye yow mi ne ci kaw di tukki li feeg yaa ngi seen jant bi sañagoo sañagoo dog ndax sunu daa wax ne fu ma atimu siyaama ilal layli kon li fekk guddi jot a guddi jant bi so sañagoo dog loolu it lu mat a bàyyi xel la kon loolu mu aju ci e, yi nga xam ne ci la weer di saxe muy ñett yooyu bu ko defee ñu ñëw ci ponki koor koor am na ay ponk yoo xam ne bu ca manki koor ga du baax loolu nag mat naa xam ba ci njëkk mooy yéene yéene nit ki ne fas naa yéene woor weer wi lépp yéene nag su ko defee benn yoon ci guddi ku njëkk gi doy na guddi ku njëkk gi boo ci defee benn yéene rek doy na waaye nag sopp nañ guddi gu nekk nga di ko yeesal sopp nañ guddi gu nekk nga di ko yeesal waaye boo ko defee benn yoon rek ci guddi ku njëkk gi doy na loolu nag mooy kor goo xam ne daa war nga toftale ko daa war nga toftale ko lu mel ne weeru koor koor gi yëpp dañ ko war a woor kon boo ci defee benn yéene rek day yóbbaale mboolem guddi yëpp liy firndeel ne yéene farata la yonent bi sallallahu ma ko wax moo wax ne man lam yu as-siyaama qabla al-fajri fala siyaama la waxaat ne man lam yubayyiti siyaama min al-layli fala siyaama la xadis boobu bu njëkk bi Abu Daawud moo ko nettali ak Tirmidi yi bu ñaareel bi an-Nasaa'i kon gépp koor goo xam ne farata la dañ koo war a toftale faw boo yéenee benn yéene rek mu ambaale euh, mbooleem la ca des kon mel ni ramadaan ak kafaara ramadaan maanaam boo dogee te tey ko ñu alamaan la ci koor boo koy boo koy fay di woor ñaari weer booy def kafaar gi di woor ñaari weer loolu boo yéenee benn yéene rek mu ambaale yéene yépp waaye nag saa yoo amee ngant ba wóoratoo saa yoo amee ngant ba wóoratoo kon booy wooraat da ngay yeesalaat yéene ji saa yoo amee ngant moo xam ngant loo xam ne moo koor mënuñoo ànd mel na jigéen ji gis règle walla mu gis dereti wasin ngànt loolu moo koor mënuñoo ànd kon saa yoo amee ngant ci biir koor gi ba ngànt la jeex mu war a tàmbaliwaat daa war a yéenewaat yéene ju bees waaye yéene bu njëkk ba du doy naka noonu koo xam ne dafa am ngant loo xam ne mën naa ànd ak koor maanaam du yàq koor ku mel ne kuy tukki kuy tukki yoon may na ko mu ñàkk a woor danañ ci ñëw léegi kooku bu tukkee ba ñibbisi guddi ga njëkk war naa yeesalaat yéenéem war naa yeesalaat yéenéem yéene ju yees kon loolu it mat naa bàyyi xel kon benn ngànt la day yàq koor bu ngànt la jeexee day yeesal yéene ji da koy yeesalaat yéene ju bees wala ngant la mën naa bañ yàqu koor lu mel ne tukki waaye bu tukkee ba ñibbisi bis guddi ga njëkk war naa yeesalaat yéeneem war naa yéenewaat yéene bu wees kon bi njëkk ci farata yi wala ci ponk yi mooy yéene yéene nag mën naa bañ a doon looy wax waaye looy fas ci xel rek la ci xol jërul nga di ko wax ci sa làmmiñ waaye boo masalan bu guddi jotee nga nga nga def li ñuy wax xadd rek kon da yéene woor kon xadd xadd bi nga xadd rek mooy mooy wane ne kon da ngaa yéene woor waaye mën naa bañ a doon loo xam ne danga koy wax ci sa làmmiñ waaye li gën nag mooy nga teewlu ko euh, ndax nu mu gën a sell rek ci la tuyaabay gën a bari kon loolu mooy ponk bu njëkk bi mooy yéene ponk ñaaral bi nag mooy bàyyi lépp lu yàq koor li tàmbalee jan li tàmbalee fenku fajar ba jant bi so lépp lu yàq koor yooyu nag yu bëree bëri la danañ ci ñëw benn ak benn waaye daal lépp lu yàq koor moo xam lekk la wala naan wala jaxasoo góor jigéen nga bàyyi ko bu fajar fenkee ba jant bi so loolu mënta ñàkk bokk na ci li yàq koor ni ma ko waxe mooy sëy diggante góor jigéen walla góor génne li ñu wax mani yi mani yi wala madi yi te mu ànd ak baax bànneex ba ko baaxoo génne loolu day yàq koor génne mani yu wala mari yu te la ko génne mooy bànneex ba ko baaxoo génne loolu day yàq koor waaye bu fekkee dafa génne boppam rek te amul benn sabab loolu du yàq koor bu génnelee boppam wala bànneex ba ko génne baaxoowu ko génne ba tey loolu du yàq koor loolu yi mat naa bàyyi xel wala sax nit ki def na bànneex waaye dara génnul ci moom loolu mën naa nekk ba tey loolu dara néewu ci wala bokk xay na def na lu gënut waaye loolu du yàq koor ginnaaw dara génnut kon li génne li yàq koor ci wàll googu mooy mu génn ba noppi te ànd ak bànneex ba ko baaxoo génne dégg nga euh, bi ko ñetteel mooy nit ki wàccu te tay ko nit ki wàccu te tay ko ku wàccu te ko sa koor yàqu na waaye bu fekkee wàccu mi moo génne boppam maanaam nekkut tayeef moo génne boppam ci ak noteel kon bu fekkee dara jàllaatul ca biir ba ca buliga kon koor ga baax na bu génnee noonu génneel boppam waaye dara jàllaatut kon loolu yàqul koor waaye bu ko tayee moom koram day yàqu te it am na lu ca war a topp ci kanam dina ci ñëw waaye lu mel ne ay lor walla ay xaxtandiku yooyu moom yàqut koor ak lu mu bari bari li gën a wóor ci ngirum Maalik mooy dañuy wax ne yàqut koor loolu nag xëy na da gis léeg-léeg koo xam ne bu waree day tifli rek walla muy ant loolu daal xëy na ñàkk xam la waaye yàqut koor kon ay tiflit wala ay ay lor yàqut koor bokk na ci li yàq koor mooy lépp lu am liquide lépp lu am liquide saa yu ñëwee ba ci buli gi bu ñëwee ba ci buli gi te jaare ci gémmiñ walla ci nopp wala bët wala bakkan lépp lu am liquide bu ñëwee ba ci buli gi ki wooroon na xam ne kooram yàqu na léegi nag bu fekkee amut liquide dañ naan balaa yàq koor day dem ba ca ba ca mbaq ga waaye bu yemee ci buli gi rek kooram du yàqu bu fekkee am bu fekkee nekkul liquide waaye liquide moom bu xasee àgg ci buli gi rek donte àggul ca mbàq ga dañu jàpp ne koor gi yàqu na waaye bu dee lu am loo xam ne nekkul liquide nag moom balaa mën a yàq koor euh, day àgg ba ca mbaq ga waaye day jaare ci gémmiñ lépp loo xam ne nekkul likit balaa yàq koor day àgg ca mbaq ga ba noppi jaaree ci gémmiñ waaye bu jaaree feneen du yàq koor ba tey bokk na ci mooy lépp lu am lu am xet lu am xet lu mel ne euh, cuuraay bu fekkee nit ki moo ko ñoddil boppam ci ay ci ay ay noam ay noyam ba mu dugg ba ca biir buli ga loolu day yàq koor bu fekkee moo ko ñoddil boppam moo ko ñoddil boppam waaye bu fekkee dafa romb rek mu dugg ko loolu moom dara newu ci waaye tiim àndub cuuraay xëcc cuuraay li ba mu dugg la ba àgg ba ca buli loolu day yàq kor naka noonu it ngay jàpp wala ngay soccoo bant bu tooy far mu rëcc jàll ba ca buli ga loolu it donte teyoo ko day yàq koor kon moo tax ku woor ñu sopp buy gàllaxndiku na ko yemale na ko na def ndànk bala muy rëcc ndax saa yu rëccee ba jàll ba ca buliga dañuy jàpp ne kooram yàqu na kon yooyu ma wax ni mooy yi nga xam ne lu ci am rek euh, koor gi yàqu na léegi nag koo xam ne dafa dog ci weeru koor am na lu ca war a topp am na lu ca war a tegu ku dog ci weeru koor benn dañ naan fay war na ko ak alamaan mën naa nekk wala ñu ne fay rek moo ko war wala ñu ne ko da ngay continuer bis bi wala doo ko continuer yooyu yëpp danañ ci ñëw benn par benn bi ñu njëkk wax mooy yi waral fay ak alamaan muy kafaara am na yoo xam ne ku ko def da ngay fay bis ba ba noppi kafaara danañ wax kafaara mooy lan kon kafaara wala alamaan boobu li koy waral mooy nit ki tey dog kooram tey dog kooram tey ko nga xam ne ci coobareem la dogekoor gi te fàttewut ak ñàkk a xam taxut moom xam na ne kat wooroon na mu tey ko te dog ci coobareem kooku dañ naan alamaan mooy tegu ci kawam mooy day fay bis ba ba noppi ñu alamaan ko kon bu ko bu fekkee fàttewut ñàkk a xam taxut ba tey taawil li ñuy wax taawilul xarib danañ ñëw ci ci loolu mooy lan bu fekkee loolu waralu ko kon day fay ba noppi joxe alamaan am na mbir yoo xam ne ku ko def dañuy jàpp ne yaa ko tey te alamaan da cay topp bokk na ca mooy nit ki woor ba digg bëccëg mu ne bàyyi naa koor gi mooy daal yéene na woor ci guddi gi woor ba digg ba bëccëg mu ne léegi wooratuma loolu ku ko def dañuy jàpp ne yaa ko tey bu fekkee yaa ko def sa coobare dañuy jàpp ne kon far fay way war na la fay war na la ba noppi danga war a kafaara wala sax euh, ci guddi gi la la wax ne man kat suba duma woor da ko wax ci guddi gi wéy moom nag ba fajar fenk te wóorut kon ba tey moo mu defoon ko ci bëccëg bi ñooyam kon ba tey kooku dañu jàpp ne kafaara da koy war naka noonu it ku jaxasoog soxnaam góor jigéen ci bëccëgu koor kafaara da cay topp bu fekkee seen coobare la naka noonu it nit ki génne màndi yu ni ma ko waxee ci ginnaaw te la ko génne mooy la ko baaxoo génne kon bu ko tayee kafaara moo cay war ak fay naka noonu it bu fekkee man yu dafa génn ci xool ak xalaat waaye nag da ko da ko yàggal maanaam da téye boppam di xool wala mooy xalaat ba man yu génn loolu dañ jàpp ne ak tayeef am na ca kon faw kafaara war na ca naka noonu ki tey génne wàccu ki tey wàccu ni tey wàccu génne wàccoom ba tey bu ca wannaatee dara te tey ko moo tey génne waccu mi ba noppi tey ko wan naa dara ca wàccu ma kon ñaar yooyu bu dajee dañuy jàpp ne kon kooku moo ko tey dégg nga waaye nag su fekkee wàccu mi dafa delluwaate teyu ko wala fàttee ko waral kon koor ga day yàqu rek waaye kafaara du ca war waaye saa yoo xam ne moo tey wàccu mi moo tey wannaat gi kon kafaara war na ca fay war na ca naka noonu it li ñu wooyee taawil al baid mooy taawil bu sori taawil bu sori ku ko def dañuy jàpp ne kafaara war na la fay war na la am na ay misaal yi ñu joxe euh, koo xam ne dafa gis weer wi dem wax ko kilifa gi kilifa ga nanguwul ay waxam mu jàpp ne sëñ ta woor mu ñàkk woor kon kooku dañuy jàpp ne lam def dañ koy wooye taawil al baid mooy taawilul baid la ndax ginnaaw gis na weer wi rek moom ci wàllu bopp ma waxoon naa ko léegi daa war a woor waaye bu demee wax ko kilifa gi kilifa gi nekk ko kat yow sa wax du ma ko jàpp kon moom daa war a woor ci wàllu boppam ndax gis na ko te dañoo waxoon ne ko gisu weer wi na nga woor suumoo li ru'yatihi te ginnaaw gis na ko rek kon bu ñàkkee woor ngir lay woowal dañ jàpp ne lay woow jubut kon daa war a kafaara dégg koo xam ne danekat tey talaata ginnaaw suba alxemes mën naa am ma feebar walla mën naa am regal bu dee jigéen mu ne mën naa am régal dikkal ma kon naa bañ a woor avant alxemes xam nga kooku la muy xaar ñëwagut moo tax kooku bu ñàkkee woor te gisagut même même même loolu muy xool loolu muy yaakaar bu ñëwee dañu jàpp ne kon daa war a kafaara kon bu ne alxames yi di ñëw daal mën naa am ma feebar kon du ma woor suba ci àllarba ji wala mën naa am ma gis regal ca alxames ja du ma woor kon ci àllarba ji kon dañu jàpp ne la mu def euh, day waral kafaara donte la mu waxoon am na ndax ginnaaw ñëwagul rek kon daa war a bàyyi ba mu ñëw ba am ba noppi nag ñu doog a xool ba xam waaye ginnaaw ñëwagut kon loolu atteem des ko nangu wala koo xam ne dafa jëw dafa jëw mbokkam jullitam jàpp ne jëw ba day yàq koor mu ñàkk woor loolu dañu jàpp ne tawilul baid lay doon ndax jëw rek dëgg naa daa araam ci weeru koor ni mu araamee ci lu du weeru koor waaye nag yàqut koor kon ku jëw sa mbokkum jullit jàpp ne jëw ga daa tax nga ñàkk bañ a woor mu ñàkk a woor kon kafaare da koy war ak fay kon yooyu ay misaal rek ci li ñu wooyee at-ta'wil al-ba'id léegi nag kafaara mooy lan mooy am na ñett yoo xam ne lislaam da koo tëral ne ci dog te tay ko benn ci yooyu war na ko xëy na ñaar yi rek jamono ji moo am mooy benn nga woor ñaari weer yu toftaloo wala nga jox juróom benn fukki miskiin kenn ku ne nga jox ko muddu nga jox ko liibaru ceeb wala daal lay ëpp ci la ñuy dundee xëy na beneen bi mooy goreel ab jaam loolu léegi loolu amatut waaye kon ñaari yi fi des mooy woor ñaari ñaari weer yu toftaloo wala jox aw ñam juróom benn fukki miskiin miskiin bu nekk nga jox ko muddu léegi nag li ci gën nag mooy li ci ëpp njariñ te mooy mooy joxe aw ñam ndax xëy na koor gi yow ci ci ci yow la yam waaye boo joxe aw ñam moom day dalay jéggi dem ci ñu bëree bëri kon yow mi kafaara war li gën mooy nga joxe aw ñam waaye boo waree ñaari weer ba tey baax na su ko defee nag benn fan boo dog ci koor gi te tey ko dañuy jàpp ne kafaar ak boppam la soo dogee benn fan te tey ko ñaar ñett benn bu nekk dañuy jàpp ne ñaari weer nga ca war a woor benn fan bu nekk ak kafaar ak boppam waaye nag bu dee benn bis moom benn bis rek benn kafaara moo cay war donte da ngaa dog ñaari yoon ci bis bi te tey ko jàpp ne benn kafaara moo cay war wala sax donte ñaari yi nga dogee bokkut da naan ndox daal di lekk même bu dee ci benn bis bi la moom dañuy jàpp ne benn kafaara rek moo ci war waaye bu dee ñaari fan walla ñett jëm kaw. bis bu nekk ak bisu kafaaram te it saa yooy woor ñaari weer yooyu di kafaara saa yoo dogaate benn fante tey ko la nga defoon lépp ay yàquwaat saa yooy fay kafaara saa yooyu kafaara ci woor ñaari weer dog ca benn fante tey ko la nga wooroon lépp ay yàquwaat da ngay tàmbale wat asero waaye nag boo ko teyut wala njuumte xay na kon baax na waaye da ngay continuer rek ca la ca des naka noonu kafaara warul koo xam ne dañ koo forcer nit kuñ forcé dogloo ko kafaara waru ko ndax dog ga nekkul ci coobareem kon kafaara waru ko kon bu góor forcé woon jigéen sëy ak moom góor ga la kafaaray war ndax moom moo forcé jigéen ja waaye ñoom ñaar buñ ca àndee nag ñoom ñaar ñëpp la kafaaray war dégg nga kon yooyu mooy yi nga xam ne mooy mooy waral kafaara léegi nag ñu ñëw ci yi nga xam ne day waral fay rek am na mbir yoo xam ne bu ko nit ki defee day waral fay waaye kafaara du ca war te mooy nit ki dog te fàtte waral ko wala njuumte wala ñu forcé ko dogloo ko yooyu lu ci mën a am euh, kafaara du ca war waaye fay rek moo cay war kon ki dog te fàtte bu dee ci ngirum Maalik moom dañuy jàpp ne koor ga yàqu na donte daa war a continuer bis bi waaye daa war a fay bis boobu bu dee ci ngirum Malik donte yeneen borom xam-xam yi moom dañ jàpp ne ku dog te ko sa koor baax na waaye ngirum Malik moom dañuy wax ne ku dog teyoo ko ndax ñoom dañuy wax ne ginnaaw ki feebar euh, lislaam da ko wax ne ko sa koor boo dogee feebar tax nga dog sa koor ga yàqu na waaye da nga koy fay kon ginnaaw ku feebar mooy fay te feebar moo gën a metti kon ki fàtte commune daa war a daa war a daa war a fay kon ñoom loolu la ñu wax Euh, kon bokk na ci yi nga xam ne fay fay rek moo cay war mooy ñu forcé la dogloo la wala euh, nga doon nga lax ni ma ko waxee woon léegi far mu rëcc ci jàll ba ca buliga kon ba tey fay rek moo cay wara wala nit ki am ngànt loo xam ne day tax koor ga du wér lu mel ne gis règle wala gis dereti wasin wala muy tukki yooyu yëpp lu ñu mën a doon bu dee ñaar yi ma njëkk a wax muy règle ak wasin moom wërta woor ndax koor ga du baax waaye nag bu jeexee da ko war a fay bu dee kuy tukkiit moom yoon may na ko mu ñàkk woor waaye nag woor ga moo gën bu fekkee du metti ci moom xëy na dana ci ñëwaat ci lu gën a yaatu naka doon bokk na ci yi nga xam ne day waral fay rek mooy lekk walla naan di sikk sàkk ndax fajar jot na walla déet maanaam bi fajar di jot yow daal wóor la ba xam fajar jot na wala déet da ngay sikki sàkk nga daal di lekk wala naan kon su boobaa euh, sikki sàkk sa mooy tax dañ naan da ngay fay bis booba ndax yéene daa war a dogu yéene daa war a dogu ginnaaw yow yaa ngi sikki sàkk rek ndax fajar jot na wala jotut nga lekk wala naan da ngaa war a fay naka noonu it booy sikki sàkk ndax jant bi sona wala suut da ngaa war a xaar ba am lu wóor doog a dog waaye boo boo njëkkantee dog te amul la wóor Eh, danga war a fay naka noonu it waxoon naa ko léegi jigéen ji nga xam ne day sikki sàkka ndax laab gi jiitu na fajar wala déet waxoon naa ko moom it ginnaaw sikki sàkka am na rek dañuy jàpp ne yéen a ja dogu kon daa war a daa war a daa war a fay naka noonu it koo xam ne lekk ak naan am na am na bu ci am ñoom ñaar waaye gannaaw bi maanaam bi muy lekk wala muy naan wóor na ko ne guddi gi des na fajar jotagut mu lekk wala mu naan léegi nag gannaaw bu fajar jo jotee muy sikk sagawaat ndax lekk ga ak fajar ga lu jiitu maanaam li ma bëgg wax mooy waa ji bi muy lekk wala muy naan daa jàppoon ne fajar jot na waaye amul lu ko wóor bu ko amee lu wóor moom ne fajar jotagut kon baax na waaye moom daa jàppoon daa njortoon na rek fajar jot na mu lekk wala mu naan gannaaw ba nag sikki sàkk dikkal ko moom wóor na ko ne lekk na naan na waaye nag xamut ba xam daa jiitu fajar wala fajar moo jiitu kon ñaar yooyu bokkuñ wóor na ko lekk wala naan na waaye gannaaw bi nag sikki sàkk dikkal na ko ndax lekk gi ak naan gi moo fajar lu jiitu ba tey kooku dañ naan ko kon fay war na la waaye bu ko wóoree ne moom bi muy lekk wala naan fajar jotagut kon moom baax na kon yooyu mooy yi nga xam ne day waral fay bokk na ci li ñu wooye ataawilul xarib waxoon naa léegi ataawilul baid waaye ataawilul xarib mooy nit ki dafa dog waaye la tax mu dog daa jàppoon ne sañ na ko xëy na am na fu mu sukkandiku fu tax mu dog donte xëy na sukkandikuwaay ba nam ko jàppee baaxut waaye daal dog na am na fu mu sukkandiku ba dog waaye nam jàppe sukkandikukaay moom moo baaxut kon wuti nag ataawilul baid taawilul baid mooy mooy amul benn cëslaay lu sukkandiku ba dog lu wér bokk na ci taawilul xarib mooy koo xam ne dafa dog fàtte tax mu dog walla ñu forcé ko kooku dana ñëw léegi wax wax ne ku fàtte dog daa war a àggale li des ci bis bi wala kuñ forcé ne ko dogal bu loola jeexee daa war a àggale bis bi léegi nag bu fekkee dafa fàtte dog gannaaw ba mu continuer di lekk kooku dañ naan daa taawil taawilul xarib kon fay rek moo koy war waaye kafaara du ko war naka noonu kuñ forcé forcé ba jeex mu continuer di lekk di naan ba tey dañ dañ naan kooku dafa def taawilul xarib wala ku tukki tukki boo xam ne matut tukki bu wàññi julli tukki bu wàññi julli mooy 72 kilomètres koo xam ne dafa tukki tukki boo xam ne matut loolu mu mu mu ñàkk a woor ngir jàpp ne sañ na ko ba tey dañuy jàpp ne daa taawil taawilul xarib ba tey fay rek moo koy war waaye yi ñuy wax amu ci lu ko wóor bu ko wóoree nag lii sañu ko moom mu def ko loolu leer na waaye njortam moo ko nax njortam moo ko nax naka noonu koo xam ne dafa xëyee janaaba xëy na sangu ci bisu koor gannaaw fajar fenk na mu jàpp ne loola day yàq koor mu ñàkk woor ba tey kooku dañu jàpp ne euh, kafaara wóoru ko waaye fay rek moo ko war naka noonu koo xam ne kon yooyu mooy yi nga xam ne ay mbir la yoo xam ne fay rek moo cay way waaye kafaara waru ci léegi nag am na mbir yoo xam ne dara waru ci koo xam ne dar dal na la ci weeru koor dara waru ci bokk na ca yooya mooy koo xam ne aweñ da koo sarax da koo da koo da koo da koo dugg aw weñ da koo dugg ba ci biiram aw weñ mu jaar ci yoon rek ab pënd dugg ko yooyu dara néewu ci kafaara waru ci fay waru ci naka noonu it koo xam ne bi mu bàyyi lekk dafa bàyyi lekk rek ñu daal di noddu fajar kooku ba tey dañuy jàpp ne dara waru ko ndax euh, ginnaaw bi fajar di jot rek bàyyi na lekk dañu jàpp ne koram baax na dara waru ko ndax yonent bi daa wax ne kulu washrabu xata yuaddina ibnu ummi maktum fa innahu la yuaddinu xata yatlua alfajr na ngeen lekk na ngeen naan ba ibnu ummi maktum noddu kon day wane ne noddu mooy wane ne koor gi tàmbali na kon nit ki sex dara ci gémmiñam dégg nodd rek mu yàbbi ko loolu dara néewu ci waaye nag li gën te gën a wóor mooy nga doxale diggante bi nga bàyyi lekk ak bi ñu nodd ab distance ab espace loolu mooy li gën a wóor nga fexe ba bàyyi ab distance diggante bi ngay bàyyi lekk ak bi ñuy nodd moo gën a wóor donte mën na ci sës waaye Euh, li gën daal mooy mu am mu am mu espace bokk na si yi nga xam ne dañ koo sib ci weeru koor mooy ki woor di mos loo xam ne dafa am cafka ku woor di mos loo xam ne daa am cafka bu fekkee jàllut ba ca buliga loolu dañ koo sib mel ne ki woor di mos aw ñam ba xam saf na wala safut waaye nag daa yam ca làmmiñ wa rek daa yam ca làmmiñ wa aggut ca buliga loolu dañ ko sib waaye aggut ci yàq koor naka noonu it nga jël tàndarma di ko yéyal ab xale ngir jox ko mu lekk nga jël tàndarma yéey ko ba mokk nga yàbbi ko jox xale mu lekk loolu dañ ko sib waaye li fekk ak gut ci buli ga rek yàqut koor waaye li gën nag mooy bañ koo def bokk na ci it ñu sib ci weeru koor mooy mooy laal laj ko lañ laal laj ko lañ yàqul koor waaye nag li gën mooy bañ koo def yàqut koor fi mu yàqee koor rek mooy li ma waxoon ci cuuraay muy saa yoo xam ne nit ki da koo da ko xëcc ak bakkanam ba mu àgg ba ca buli ga loolu moom moo xam cuuraay la wala lañ ko la ñoo ci am saa yu ko xëccee ba àgg ba ca buli ga rek dañu jàpp na yàq koor waaye bu yemee ci ci bitti rek moom dañ koy sib waaye àggul ci yàq koor naka noonu bokk na ci liñ sib li ñuy wax alwisaal loolu na xam naa moom ndaw ko ndaay yi moom dañ ko dañ ko def muy woor ba ngoon nga continuer koor gi bañ a dog loolu dañ ko sib li gën mooy saayu dog jotee rek nga dog ndax loolu dëgg la yonte bi daana ko def waaye nag santaaniwu ko moom daa waxoon ne man bokkuma ak yéen ndax suñu boroom moo may leel moo may moo may màndal kon moom daana woor ba ko ba dog jot mu continuer koor ga bañ a dog waaye kon kudul moom sib nañ ci moom loolu léegi nag waxoon naa ne nit ki dog ci dog ci weeru koor am na lu ci war a topp muy benn kafaara ak fay wala fay rek waaye am na lu ñuy wooye al imsaak mooy jàpp àggale bis bi àggale bis bi loolu nag am na ñoo xam ne ñoom la concerné am na ñoo xam ne concerné wu leen ko na ci ñu concerné mooy koo xam ne euh, dañ koo forcé wax naa ko léegi kuñ forcé ne ko dogal saa yu forcé ga jeexee daa war a continuer bis bi daa war a àggale bis bi koo xam ne daa dog te teyu ko daa fàtte dog daa fàtte dog bu ko fàttalikoo daa war a continé bis ba waaye koo xam ne dafa feebaroon feebar ba wér ci bëccëg bi duñ ne ko da ngay continuer woor déedéet ginnaaw feebaroon na ci bëccëg bi feebar ba wér duñ ne ko li des ci bis bi danga koy woor kooku mën naa continuer di lekk di naan naka noonu ki tukki woon daal di ñibbisi ci bëccëg bi duñ ne ko da ngay jàpp li des ci bis bi déedéet mën naa continuer di lekk di naan naka noonu xale bi nekkoon gone daal di kàlle fi ci bëccëg bi ba tey mën naa continuer mën naa continuer di lekk di naan kon kon imsaak ki ñu naan moom la war rek mooy koo xam ne dafa fàtte daal di dog wala ñu forcer ko forcer ba jeexee dañu wax ne war naa àggale bis ba su ko defee koo xam ne it dafa tuub ci bëccëgu weeru koor sopp nañ sopp nañ ci moom rek waaye warut sopp nañ ci moom mu jàpp li des ci bés bi sopp nañ ci moom mu jàpp li des ci bés bi te sopp nañ bu koor gi jeexee mu fay ko waaye àggut ci war dañ ko sopp rek kon tom bi ci topp mooy dog ci ab tukki maanaam kiy tukki kañ la sañ a dog kañ la sañ a ñàkk a ñàkk bañ a ñàkk a woor am na ay conditions yoo xam ne bu ca dajee dagan na ci nit ki mu ñàkk woor dagan na dagan na mu ñàkk a woor waaye nag waxuñ maanaam wërta woor waaye dagan na ci moom rekk waaye li gën nag mooy mu woor wa an tasuumu xayrun lakum kon sart yooyu bokk na ca tukki ba na nekk tukki bu mat doxo doxub wàññi tukki boo xam ne mat na doxo doxub wàññi mooy tax nit ki sañ baña bañ a naka noonu it tukki ba nekk tukki bu dagan waaye bu dee tukki bu bu xaraam nit ki sëñta ñàkk woor bi ci topp mooy mooy ñetteel bi mooy bu dee ci ngirum Maalik dañuy wax ne na tàmbuli tukki bi laata fajar di jot loolu yi lu mat a bàyyi xel la bu dee ci ngirum Maalik dañuy wax ne boo dee tukki bala ngaa saña dog sañ a ñàkk woor da ngay tàmbulee tukki ba génn dëkk bi nga nekk laata fajar di jot waaye bu la fajar fekkee ci dëkk bi moom sañoo ñàkk woor loolu lu mat a bàyyi xel la kon ñetti condition yi mooy ñett yi nga xam ne bu dajee kuy tukki sañ ngaa ñàkk a woor sañ ngaa ñàkk bu ko defee ba tey ku feebar moom it sañ naa ñàkk bu fekkee feebar ba feebar boo xam ne moo koor mënuñoo ànd koo xam ne ndax feebar feebar boo xam ne daal dem na ci am médecin bu wóor mu xool ko ne ko yow mii kat koor gi mënta ànd ak feebar bi kon sañ naa ñàkkawoor waaye nag bu koor gi jeexee day fay waaye nag waxuñ feebar boo xam ne moom mën ngaa woor téewu laa mën a woor loolu moom boobaa da ngay woor waaye boo xoolee bañ na la gat man ngaa ñàkk a woor kon sañ ngaa bañ a woor naka noonu it bokk na ci yi tax ñu maye ñàkk a woor mooy jigéen gu ju nàmpal wala jigéen gu ju ab diggante jigéen ju nàmpal wala ko toll ab diggante bu fekkee ragal nañ ne bu fekkee ragal nañ seen seen xale bi ki nàmpal xale bi mu ëmb wala ki ki ëmb xale xale bi mu amu ci biiram wala ki nàmpal xale bi mu nàmpal ragal na ne bu wooree mën naa loru kon lislaam may na ko mu ñàkk a woor bu ñu ragalee ne xale ba mën naa loru moo xam ki ëmb wala kiy nàmpal benn ñu yaakaar ne feebar bi mën naa yokk wala wala moom ci boppam su wooree mën na caa am coono bu méttee métti kon lislaam may na ko mu ñàkk a waaye nag saa yoo xam ne bu ko wóoree ne su wooree moom mën na caa mën na caa doxe faatu moom boobaa sëñ to woor kon day war ci moom mu mu dog kii nàmpal nag bu amee koo xam ne mën na koo fay muy nàmpal xale bi kon su boobaa day fay kooka dem woori jox kooka mu nàmpal xale bi kuy nàmpal bu amee lu mën a fay waaye dañuy wax ne kat la muy faye xale ba walla la muy faye kay nàmpal bu fekkee xale bi xale bu ndaw bi am na xaalis kon dañ koy jël ci alalu xale bi loolu mën naa nekk nit mën naa faatu bàyyi fi doom doom ja am alal ca nonn ma ca nonn ma kon bu yaay ji di nàmpal doom ji di fay keneen sañ naa jël ci alal ji fay kooka bu fekkee nag xale bi amul amul xaalis amul alal kon waajur wu góoram mooy fay nàmpal ga waaye moom yaay ji waru ko waru koo fay benn ci alali xale bi wala waajuram bu góor moo koy fay su ko defee nag kii nàmpal bokkut ak ku ëmb ku ëmb moom dañ naan ko sañ ngaa ñàkkawoor a te it kenn du la ca tegal dara maanaam xëy na dana fay waaye duñ ne ko da ngay joxe aw ñam waaye kii nàmpal moom dañ naan ko bu condition yi dajee sañ ngaa ñàkk woor waaye nag dangay joxe aw ñam da ngay joxe aw ñam kii kii kii nàmpal ndax dañu jàpp ne ki ëmb moom daa amee àttab ku feebar ndax ginnaaw waxu nañ ku feebar moom fay rek moo ko war kon ki am bu dañ koy jox atteb ku feebar waaye kuy nàmp wala waaye ki nàmpal moom amut atteb ku feebar nàmpal dëgg saa may na nga ñàkk war bu condition yi dajee waaye nag da tegaat leneen mooy da joxe aw ñam dangay joxe liibër saa yoo xam ne ñàkk nga woor ci ab bis naka noonu it mag moo xam ne daa màggat ba munta woor sopp nañ ci moom muy joxe aw ñam ku màggat ba munta woor kook kon du woor lislaam wàccal na wàccal na ko koor ga waaye nag bis bu nekk na na génne mudd joxe ko jox ko miskin yi kon loolu mooy attey koor ak la ci ajo xam naa waxtu wi tënk nañu li waajaloon des na waaye euh, fi ñuy jeexale rek mooy yiñ sopp wala liñ taamu ci ku woor di ko def ndax mooy tax kooram gën a mat tuyaabaam gën a bari bokk na ca yooyu mooy ku woor na moytu lépp loo xam ne amut njariñ dañoo jëlale lu xaraam wala luñ sib waaye lépp loo xam ne mënu caa jële tuyaaba ki na koy moytu kon li gën mooy ki woor waxtu wépp mu koy jeexal ci lu baax jàng alxuraan dox mbokk ak lépp lu lislaam ne lu baax la bi ko ñaareel mooy bokk na ci teggiini koor ak ay ngëneelam ak yi ñu sopp mooy gaaw a dog saa yoo xam ne jant bi sona saa yoo xam ne wóor na la jant bi sona nga gaaw dog su ko defee nag booy dog sopp nañ nga doge ci lu tooy lu tooy li ci gën mooy tàndarma te mu nekk lu tool benn wala ñett wala juróom wala juróom-ñaar kon na nekk lu tóol ba noppi nekk lu tooy bu fekkee amoo tàndarma nag lépp lu am suukar baax na lépp lu am sucre lu am suukar baax na mën nga koo dogooy boo amut loolu lépp nag nga naan ñetti góoxi ndox nga naan ndox nga naan góoxi ndox kon li li gën mooy lu am lu am lu am suukar soo ko amul nag nga doog a jël ndox naka noonu it waaw bi ci kon bi ko ñeenteel mooy xadd xëy na li wax naa gaawa a gaaw a dog avant ngay julli waaye nag li gën mooy nga bañ a def ni ñenn ñiy def mooy da ngay mos rek daal di dem julli ji ba noppi nag boo ñëwee àggale waaye dogu rek daal di tiim palaat bi mel ni ab mus ab buso buso loolu gënut ndax mën naa am waxtu wa euh, faat la wala boog lu bari faat la ca kon da ngay mos rek mos gu woyof daal dem julli ji nag boo ñëwee macha allah nga àggale comme ni nga ko bëggee waaye na nga maytu maytu nag la siñ ba waxoon mooy bu ngeen wooree bay dogu na ngeen bañ a topp seen seen loxo ndeyjoor mooy di lekk mel ne aw nag wuy lekk ndax koor tekkiwut ne boo dogoo danga war a dabaatal la la rawoon ci bëccëg bi yépp waaye koor ni ki daa war a woyof ngir mën a gën a mën a jàmm yàlla waaye ki war ba ngoon di lekk ba biiram fees day tax tuyaabaam wàññiku kon bi ci mujj mooy mooy xadd moom it bokk na ci ngëneel yi nga xam ne képp koo xam ne bëgg na kooram di mat war na koy fonk xadd nag mi ngi tàmbalee ci xaaju guddi gi xaaju guddi gi ba fajar di fenk diggante boobu loo ci lekk rek te jublu ci xadd xadd lay doon waaye lu mu gën a jege fajar moo gën lu gën a lu mu gën a gën naka noonu it même bu fekkee xiifoo fekkee xiifoo sopp nañ lu mu néew néew nga guux guuxu ndox walla nga lekk benn doom tàndarma waaye xadd jot mu mu wóor na le waxtu wi jot na nga bàyyi ba mu weesu te defoo dara luy wane xadd nga loolu dañ ko sib kon liñ tàmm mooy Euh, su waxtu wi jotee rek nga nga jël dara mos jublu ci xadd ndax yonte bi waxoon na ne tasaxaru fa inna fi suxuri baraka na ngeen di xadd ndax xadd baraka mi ngi ci ndax day dimbali nit ki mu a am kàttan ci bëccëg bi sëñ bi waxoon na ne tasaxaru fa inna fi suxuri barakatan taxmi anil madxuuri na ngeen di xadd ndax xaddkat barke ngi ci boo xam ne day fekk seytaane kon sëñ Abdul Ahad xam naa kon dañuy yamale foofu rek waxtaan wi di jégalu ñàkk a nos gi ak euh, ñàkk leer gi di sant bu baax di gërëm di ñaan sunu borom tabaaraka wa taala mu dimbali ñu ba koor gi ñu tàmbali ñu agale ko ak jàmm te lépp lu ñu ci def lu mu néew néew ak lu mu bari bari mu nangul ñu ko te yàqal na ko fa yàq agul di gën a ñaanal Cheikh mu Mountakha sunu borom gën koo yàggal gën ko yokku wér di siyaare kilifa yi nga xam ne ñëw na ci jataay bi léegi bu ñu ciy tuddee Cheikh Ahmadou Badawi di sunu waajur ñu ngi koy siyaare bu baax di ko ñaanal moom di ñaan Cheikh Mamadou Mountakha di baax sëñ Cheikh Mountakha mi nga xam ne ñëw ci jotaay bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu. jërëjëf sëriñ Cheikhouna mu Cheikh Mouhamadul Mourtada moo ñu doon defal waxtaan wi doon ñu waxtaanal ci sawmu Ramadan ahkaamun wa adab muy bind bu mu doon. jàngale wala bu mu doon fàttali bu am solo muy weeru koor yan atte moo nu ci war ak yan teggin lañu war a làmboo ngir mu mën ñoo amal njariñ muy tënk ko ci tomb yu am solo yu leer wax dëgg yàlla yoo xam ne ñi ko doon seetaan jariñu nañ ci wala ñu doon déglu su fekkee ne fekkewoo jataay bi bi muy tàmbali sëriñ bi tënkal nañu tomb yi waxtaanal nañu ci bi ci njëkk mooy waxtaanal nañu ci sarti koor ak kan la war ak ban waxtu la koor di war loolu laytaay na ci lu yaatoo yaatu ci lu aju ci jeexitalu baraxlu bu ñëwee lu ñuy ci war ak bu ñu tàbbi ci koor lu ñuy war ak yu demee noonu muy lu am solo ñaareelu tomb bi waxtaan ñu ci kan kañ la koor di war wax naa ko léegi ñetteelu tomb bi indil la lu yaatu ci faratay koor ak ay sunnaam li ma ko waxee ci tàmbali bi nit ki lu muy def lu nekk bu xamul farata ya xamul sunna ya dafay mel ne jëf ja mën naa bañ a mën na ko bañ a amal njariñ kon ki doon déglu war naa xàmmee ràññee bu baax farata yi ak sunna yi mu mu bàyyi ci xel ci waxtaan wi suñ seexu naa doon def ni ki noonu waxtaanal nañu ci tamit lan mooy yi nga xam ne dafay yàq koor te borom bu yàqoo ci moom te mu tay ko maanaam kiy dog kooram te tay ko loolu daan bi nga xam ne lislaam da ko ciy teg muy kafaara lan mooy kafaara ak nu ñu koy defee yooyu yëpp wax dëgg yàlla indi na ci lu yaatoo yaatu ak yi nga xam ne dafa dafa yàqu kooruk nit ki te teyu ko mu muy muy lu mel ne nga doon galaxandiku mu jàll walla yu ni demee loolu la ciy war loolu lépp leeral nañu ko te leeral leen wu am solo yaatal tamit ci yàq koor yëpp yi ci aju boo toppee waxtaan wi ci ginnaaw danga ko xam incha allah yi nga xam ne sib nañ ko tamit ci koor ku woor di ko def li ñu xam ne sib nañ ko ci ku woor di ko def yu ci bëri leeral na ko lu mel ne moscin ak yu ni demee ak yi nga xam ne tamit euh, bu amee lu tax kooru nit ki yàqu euh, lu mel ne kiy liggéey ci pënd puseeru yoon ak ak yu ni demee ak yaatal na ci moom it euh, yu am solo yi nga xam ne nit ki mën na koo gaar te kooram du yàqu wala yi nga xam ne su amee nit ki fekkoon na ko muy tukki dog kooram ñëw ñibbisi li nga xam ne mën naa tax mu continuer kooram te du duñ ko daan benn daan yooyu tamit ay sew-sew la yu am solo yoo xam ne nit ñi dañ koy faral di laaj mooy yi nga xam ne su la dabee fekkoon nga woor euh, wala fekkoon wóoroo nga ñëw ñibbisi wala dara te du yàq ci la nga doon def dara te doo ci amuk daan loolu it lu am solo la nit ki nga xam ne tamit may nañ ko mu dog kooram te dara du ko ci war leeral na ko ci mujj muy lu mel ne kuy nàmpal wala koo xam ne dafa ëmb dafa toll fenn wala kuy tukki ak yu demee ñooñu nga xam ne am nañ sañ-sañu dog seen koor te fay rek moo leen ciy war loolu yaatal na ci bu baax a baax waaye mu tëjee ngëneeli koor yi nga xam ne sopp nañ ko ci euh, rawatina ni ko leeral léegi yi nga xam ne sopp nañ ko muy euh, fekk saw làmmiñ ci wax yoo xam ne jaarul yoon euh, sàmm say cër bàyyi wax yi nga xam ne du wax yu baax lu mel ne jëw ak wax yu ci aju yoo xam ne daal wax yu amul njariñ loolu lépp ku woor dañuy sopp ci moom mu def ko ndax dana tax kooram kooram sell dana tax kooram surtout li mujjee mooy xaw a moytu sa bopp ci wàllu ñam yi nga xam ne koor tamit waxtu la woo xam ne su ñëwee nit ki daf ko war a tàggat boppam ci e, di jël lu yam du caagee ne soo soo wooree ba dog rek da nga war a dabu li nga lekkutoon ci bëccëg gi lépp ci ngëneelu koor la bokk ak fexe ba ni mu ko waxee ci sunna yi ni mu ko leerale wane ni tamit ngëneel la muy gaaw a dog ak yeex a xadd eh, ak liñ taamu ci ko ko doge lu tooy muy muy tàndarma eh, muy waxtaan wu am am solo woo xam ne wax dëgg yàlla bind la bu am solo ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ñi la ñaanal sunu borom eh, gën laa defal tawfeex gën laa defal kàttan ak wér te sàmm sa xam-xam ba nga gën a mën a jariñ lislaam bi barakat xaadim rasul su ko defee xam naa ne eh, ni ñu ko waxee woon ci bi ñu tàmbali eh, Cheikh Mouhamadul Mountakha moom mi nga xam ne mooy jëwriñ di borom liggéey bi mooy kilifa gi joxe ndigal ci li ñuy def lépp eh, ni ñu ko waxee woon ay ndawam ñëw nañ yabal na leen fi ki ko jiite ndaw yi mu fi yabal mooy sëriñ Ahmadul Badi Mbacke mu Cheikh Ahmadul Fadal teew na fi ànd ak sëñ Cheikh Khadim Mbacke ak sëriñ Abou Mbacke mu sëñ basiiru Moor ak mbooloo mi ñu àndal ñoom ñëpp ngir teewal fi sëriñ bi xam naa danañ jox kàddu sëriñ Ahmad Badi mi nga xam ne mooy wax ci turu sëriñ bi suñu daaneele su ko defee tamit xam ngeen ne jataay bi saa suñu fi teewee rek dañuy fàttali dañuy fàttaliku bu baax sëriñ Moustapha mu Cheikh mu sëriñ Massamba ci moo ko daa ubbi si e, di jàpp ci liggéey bi jàppin wu doy war noonu la këtt ak njabootam wéyale Euh, kon ñu ngi siyaare bu baax a baax xalifa sëriñ Masamba di sëriñ Mamor Mbakke euh, di siyaare it sëriñ Ahmadou Mbakke mi ngi xam ne mooy xalifa sëriñ Moustapha yabal nañ fi délégation bu am solo bàyyi ko kër sëriñ Masamba euh, mën nañ cee ràññee sëriñ Seexuna Mbakke mu sëriñ Moustapha Masamba ak sëriñ Xaadim Mbakke mu sëriñ Mamor ak sëriñ Abdou Rassaax sëriñ Fallu sëriñ Ibrahima Gueye ak mbooloo mi àndal ñoom ñëpp teew fi waaye tamit noonu la ñuy Euh, sëriñ Mamor Mbacke mu Cheikh dul faadal euh, moom mi nga xam ne kenn ku ne xamoon na taxawaay bu rëy bi nga xam ne amoon na ko ci liggéeyal lislaam rawatina alquran waaye mu amoon ko ci taxawaay bi ci liggéey bi ñuy liggéey fii ci jumaa ji daa fi teew teewal jëmmi sëriñ bi di fi teewal boppam di jàpp ci liggéey bi jàppin wu am solo moom it ki noonu waxtu wi bu jotee dañ koy fàttaliku moo tax Euh, doomam mi ngi nii di xalifaam sëriñ Moustapha moom sëriñ Mamor teew fi ànd ak ay rakkam euh, moom it ñi ngi koy euh, ak ñi nga xam ne sëriñ Mamor daana baaxoo ànd ak ñoom ku mel ne sëriñ Seexuna Sàll sañ Ilimaan Gay ñoom ñoom it ñu ngi leen di sant bu baax ci teewaay bi di leen gërëm ni ki doon tamit daaira xidmatul xadim sëriñ moo Diop moo ko jiite ñoom it teew nañ ci jataay bi ak délégation bi nga xam ne moo bàyyi ko asaabul janna daayira asaabul janna bi nga xam ne ñooy buub jumaa ja alxamis Euh, te bàyyi sëriñ Bousso bi Bousso sunu bàyyi sosoon ko moom it teew na fi sëriñ Bassirou Bousso moo moo jiite délégation bi moom it teew su ko defee bala ñoo jox kàddu gi sëriñ bi ñu fàttali ne euh, suba ak jàmm insha allah euh, xam naa yow mi yor jadwal bi am na ak soppiku ndax tarbiyatu ruuxiya inda Cheikhul Xadim la ñu waroon a waxtaane waaye incha allah suba waxtaanu sëriñ Maamun Mbàkke mu Cheikh Ahmadul Fadal mooy mooy mooy mooy ñëw muy waxtaane al mursidi rabbaani muwaasifatuhu wa makaanatuhu maanaam sëriñ Maamun mu Cheikh Ahmadul Fadal moo koy waxtaane mi ngi waroon a am ci ñaar fukkeelu fan bi ak ñeent maanaam melokaanu kilifa ak diine ak wàccuwaayam moom la sëriñ Maamun mu Cheikh dul Fadal di waxtaane suba incha allah bu juróomi waxtu tegee fanweeri minute kon dañuy jébbal kàddu gi rek euh, sëriñ ahmadul badiwi mbakke mu cheikh ahmadul faadal mu indi kàddu yi bàyyi ko ci sëriñ bi cheikh mahamadul muntaxa kon sëriñ bismillah su ko defee ñu ngi fàttali mbokk yi nga xam ne it ñooy topp waxtaan wi euh, képp koo xam ne rek am nga laaju diine boo xam ne bëgg nga koo laaj mën nga ko yónnee whatsapp wala nga woote ci numéro bi di 78 689 28 28 78 689 28 28 mën nga ko ci yónnee bu ko defee bu soob yàlla euh, sunu mufti yi ñi nga xam ne ñooy e, def fatawaa yi danañ ko tontu 78 689 28 28 boo ci yónnee message whatsapp wala nga woote ci rek danañ jot sab laaj kon sëriñ bisimilah. asubillahi min asheytaan irajim bismillahi rahmaani irahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf alambiyaai walmursalin sayidina wa moolana muhammadin wa ala alihi wa ashaabi ajmain asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi yëkkati kàddu ci turu sëriñ Mouhamadou Xabbaan moom Cheikh Mouhamadul Fadil mi nga xam ne moom la sëriñ bi jox ndigal mu teewal ko ci liggéey bi yàlla dogal ngànt dab ko mu wax ne nañu ñëw teewal ko fi indi ndigal ak kàddu sëriñ bi nu ànd ak sëriñ Cheikh Ahmadou Mbàkke moom Cheikh Mouhamadul Muntaqa ak sëriñ Abo Mbàkke ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la sëriñ bi wax ne nañ ñëw indi kàddu googu sëriñ Mouhamadou Xaban wax ne nañ ñëw indi kàddug sëriñ bi mu doon kàddug cant kàddug ngërëm kàddug rafetlu liggéey bu rafet bi nga xam ne mooy am fii ci jumaa ju mag ji di am ci weeru koor muy weer woo xam ne mooy weeru borom bi subhaanahu wa di weeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di weeru cheikhuna alxadim radiallahu anhu di weeru jullit yépp mu doon weeru alquraanul karim doon weer woo xam ne nii ngeen koy dundale noonu la baaxe wax nañ ne ku baax ki bu weer wi daan jublu si ñëpp dañ koy ràññee ci moom biir weer wi ñëpp dañuy xam ne weeram ñëw na nu bàyyi ko léegi ci Cheikh Mouhamadul Muntaxa moom itam fii ci kër gu mag gi ci jataayu ruuxaaniya bu am solo boobu yi nga xam ne moom lay def ñu di ko ñaan mu ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ko wér ba li mu yéenee liggéeyal sëriñ bi lépp mu mën ko def ni mu ko bëggee te nu ànd ko ak moom sëriñ bi ne na ñëw kon indi kàddu cant yooyu teg ko ci loxol muqaddamatul xidma mu doon mbooloo moo xam ne ñoo am tawfiixi sëriñ bi jagleel leen liggéey bu réy bii muy di toppatoo jumaa ju mag ji nga xam ne nag mooy jublukaayu murid yëpp mooy seen yaakaar doon jumaa joo xam ne ki fi nekk léppam sallallahu alayhi wa sallam la woon léppam lislaam la woon muy cheikhuna alxadim radiallahu anhu waaye weeru koor ni ma ko waxee sànq ràññi woon lool ci nu ko sëriñ bi fonke woon dégg nañ it yu bari yi nga xam ne def na ko ngir teere ko weeru koor yaa xayra dayfin waaye bu mosaan di ko ma wax niñ ciy dundale weeru koor daan ko dundale noonu ànd ko njaboot gi waaye bu ñu demee ba weer wi mel ne luy tàggoo day mel ne bëggut weer wi dem bëggut gan gi tàggoo ñu gis moom itam xasaayit yooyu nga xam ne def na ko ngir di ko màggale di ko terale ganam gu màgg goog yi ñu koy dundal fii nag ci lii nga xam ne moom la Serigne naa Mbacké doon def léegi muy waxtaane xam-xam tomb yu bari yu fasanti ko waaye bii mu doon def tey dafa mel ni moo mënta ñàkk rawatina nag bi mu ko ubbee ci weeru koor ndax nit lu muy def da ko war a xam te defe naa ne bu ñu ko dégloo bu baax a baax li ñu mënta ñàkk a xam ci weer bi yépp macha allah indi na ko jërëjëf yàlla na la yàlla fay yàlla barkeel la waaye sëriñ xabaan ne nañ li wala nañ fàttali kàddu cant yoo xam ne Cheikh Mouhamadul Mountakha da koo jëmee ci njabootuk sëriñ Moustapha moom sëriñ ma Massamba ndax sëriñ Abdoul Ahad wax na ko léegi muy taxawaay bu rëy bu rafet bi nga xam ne amoon na ko ci bis bii waaye alhamdulilah waa muxaddamatul xidma ñoom itam wéyal kóllëre googee waaye sof njaboot gi mu fi bàyyi itam yokk taxawaay boobee nga xam ne moom la sëriñ bi doon taxawee ñu di ko ñaanal sunu borom yokk ay leeram waaye di siyaare rakkam ju baax ji sëriñ Mamor moom ma Massamba di ko ñaanal mu yàgg fi lool ak wér moo njabootu ma Massamba gépp di jagleelu bi nuyoo itam sëriñ Ahmadou Mbacke moom Cheikh Moustapha moom sëriñ Massamba naka noonu nag ñëwee ci sëriñ Maam moom Cheikh Mahamadul Fadil nga xam ne moom it moo amoon ndigalul di taxawee jataay bii ndax Cheikh Mahamadul Moustapha wax nañ ne bi mu ko taxawalee ab diir dafa wax Cheikh Mahamadul Muntaxa ne ko liggéey bàngoog yi dama bëgg sama njaboot ñëw di ko ànd ak yow kon loola moo waral Cheikh Cheikh Mahamadul Muntaxa ci boppam jox ndigal sëriñ Maam Mor moom Cheikh Mahamadul Fadil muy taxawe bis bii ñu di ko fàttaliku di ko ñaanal moom it sunu borom yokk leeram di nuyu Cheikh Moustapha ak njaboot gi mu àndal di leen di leen di di di fàttaliku ci ñoom kooku nga xam ne jëmm la boo joo xam ne kenn la woon kenn ku nekk amoon nga ci moom cër boo xam ne da ngay jàpp ne moom rek yow rek la ko jagleeloon naka noonu mboolem ñi nga xam ne ñoom ngeen daan àndal liggéey bi sëriñ Mouhamadul Xabaan mi nga xam ne moo am ndigalul taxawee lépp lu aju ci. daaree alxuraan yi ci dëkk bi muy cër boobu nga xam ne moom la sëriñ bi ndigal loolu sëriñ Mamoor yoroon ñu di ko ñaanal moom itam mu yàgg fi lool te ànd ko wér bis bi ñor ko lool yitteel ko ngante ko dab mu wax ne nañ ñëw donte lott nañ ci néew nañ ci doole ñu ñëw indi ndigal loolu nga xam ne moo jógee ci a Cheikh Mahamadul Muntaqa ànd kook sëriñ Cheikh ni ma ko waxee léegi ak sëriñ aboo ak njaboot gi nga xam ne sëriñ bi yebal nañ leen fi di leen ñaan ñaanal sunu borom gën leen a gàttandu gën leen a jàppale gën leen a dëgëral ba liggéey ba rafet bii nga xam ne yéen a koy def waaye di ko defee fii nga xam ne nag fi lay gën a yelle mu yàgg lool te sax te yokk te ànd ak jàmm te gën a jàppandi waaye ni ngeen di dundale weeru koor wi ci ndogu yi ku ne xam na ne loolu sallallahu alayhi wa sallam li mu ci wax ñun ñëpp xam nañ ko iftaaru saa'im loolu lu am solo la waaye di ko dundal ci xam-xam di fi jàng alxuraan yi nga karim ji nga xam ne mooy moo moo mooy alali sëriñ bi mooy ab cëram waaye mooy nag li nga xam ne mooy chahru ramadan allazi unzila fihi alquran kon nii ñu koy defee ci jataay bi sëriñ bi nee na xolam sedd na mu ngi leen kii sant di leen gërëm ku ne xam ne diggaw Cheikh Mahamadul Muntaxa ak muqaddamatul xidma ku ne xam na ko kon nag lam daan wax rek lay wax lam daan soññee lay soññee moom ci boppam sax bu kattan gi mayoon mooy ñëwal boppam fii waaye gis nañ ne mi ngi jógee léegi ci kër gu mag gi te boobu itam mi ngi jokkook yéen di ànd ak yéen jataay bi nga xam ne moo nekk fii di ñaan suñu borom gën ñoo tawfixal gën ñoo dëgëral fayal ñu Cheikhuna al Xadim radiyallahu anhu te def ñu dëgg dëgg taalibe yoo xam ne dañuy topp ci yoonam wi nga xam ne moom la xàlloon te mooy rek yoon wi sallallahu alayhi wa sallam indi woon dara raxu ko dara kooju ko yàlla nañu yàlla def dëgg dëgg taalibe Sëriñ Tuubaa te fayal ñu Cheikhuna al Xadim fayal lu njabootam gi te barkeel te jàppale dimbale mboolem murid yi bayit woowu sëriñ bi daan wax yaa rabbi jaalil muridina ma fi xisnika alxasini wa chamlaj maa yàlla na ko yàlla defal asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi euh, sëriñ bi kàddu yi am na solo lool euh, ñu ngi lay ñaanal bu baax yow it defal la tawféex ak taysir di sant bu baax sëriñ Mouhamadul Xabbaan Mbàkke mu Cheikh Abdul Fadal moom it ko ñaanal Eh, gudd fan ak wér waaye di sant kilifa yi fi teew yëpp su ko defee kon eh, incha allah ñu fàttali leen rek ne kon jataayu suba bi bu juróomi waxtu tegalee fanweeri nit sëriñ Mouhamadul Mamoun mu Cheikh Mouhamadul Fadal mooy ñëw def waxtaan wi mi ngi ñuy waxtaanal ci melo eh, melokaanu kilifa diine ak wàccuwaayam kon ñu ngi sant mbokk yi nga xam ne ñoo fi teew ñoom ñëpp di sant mbokk yi ñuy topp ci MKTV GMT. ak site internet yi nga xam ne ñu ngi koy jël yëpp ak Lamp Fall télévision ak rajo yi yi nga xam ne ñooy jël waxtaan yëpp ak fu ñu mën a nekk asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi أهلا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 yaa xayra dayfin ataa